xool leen gaal yi xool ñu taal xool leen xool leen xool leen gaal yi sooy xarit may def gars yi li ñu def ñaaw na ñun gaa yii dafa ñaaw wóor na sulaay xoolal xoolal sooy ay waa jile ay matta fi nekk matt matt matt non lii dafa ñaaw non mais kayaar kayaar sooy ak gendar gendar duñ benn quoi xool leen xool leen sooy xool leen xool leen xool leen yàlla suñu borom tey sunu borom allahu akbar fale gaal mbaal gi gaal mbaal gi tot tot ngi ñoon fale fale fale gaal mbaal gi gaal mbaal gi sax gaal mbaal te du yii rek de tantu yo xoola côté bii lan dëkk ñun côté bii lan dëkk xoole waaye suñu fii yëpp lan taal xoole xoole ñoom heureusement rawale nañu yenn ya ya gaal yi quoi mais yenn gaal yi gis yëpp gars yi taal nañ ko xool leen. sa waay yéeme na de ah ah gaal leen taal kañ la ko fay kañ la ko fay. xoolal kër yi ñu taal sa waay xoolal kër yi sa waay lii ñaaw na ay waa ji de. Siat, tat, tat, tat, tat. Siat. Allah Akbar. الله اكبر الله لا اله الا الله شاتاتات قول لي كرني غياك قول لي قول لي سؤال لي نياونا نعم. بالله لي لي لي رفعت الجاكل كوا لي الله اكبر